de la population l'avenir de la nation dañu xool ni 1900 wax nañ ko léegi 1980 ba léegi si Senghor la commencé bi mu fi bëggee teg Abdou Diouf dafa indi Dofina 2012 ñu gis Ablaye Wade li mu def avec pour le troisième mandat mais aujourd'hui ñun dañu continuer suñu trajectoire dañu def benn lël bi ñu defee lël bi ki nga xam ni mooy rapporteur CNRI bokk ci conseil d'administration forum civil di professeur Abdoulaye Dieye dajale membre forum yëpp moom la ñu wàcce tey ñun jàpp nañu lii lu jiitu weer président di wax lii c'est dañu ni question mandat bi question bi président la concerné mais réforme yi mi ngi engagé l'avenir de la nation c'est réforme yi la population yëpp gën a taxaw mais référendum mi ñu wax nan ngay toggee rek décréter rek ne le 20 mars dafa am loo xam dafa laaj président calendrier républicain lu ñu waxtaanee la du président moo war a toog fi ñu toll tey réew mi yëpp a ko am na opposition mais opposition nag bu responsable boo xam ne tey dafay taxaw nekk opposition bu mat société civile bu tëdd ndey seex mais du neutre parce que ñun forum civil encore on est équidistant mais on n'est pas neutre maanaam les questions d'intérêt général l'avenir du pays nous engage dañ ciy wax prononcé wu ci pour di alerte ndax li tax ma wax la lii le 24 mai 2011 fii lañ dajale ci Thiès ndax Thiès dafa am taarix les acteurs politiques kilifa diine yi église bi ne leen ah la am Côte d'Ivoire de mën na am Thiès Sénégal du moins nañu waxtaan 23 mu am un mois re re actuellement boobu la ñu toll phase bi ñu toll mooy 2012 ba léegi régime bi fi nekk amul waxtaan entre les différents am na coalition mais xam nga coalition yi encore il faut ñu wax ko c'est de forte minorité et c'est détourner même le suffrage des Sénégalais tey 65 pour cent yooyu soo ci génnee sama kàddu génne ci sa kàddu génne ci askan wi ñoo ko moom mais li ñu am mooy président de la république pour référendum bi mën a jàll nekk référendum boo xam dafay am njariñ parce que y a des risques le premier risque mooy désaffection des populations nit ñi fiñ ñu dañuy dégoûté ci politique bi beneen bi mooy abstention beneen bi mooy coût bi ñu ci war a def ak impact bi soo ci dugalee ay milliards enseignants ngi laaj xaalis santé ngi laaj est-ce que loolu dina ko jar donc dafa laaj waxtaan comme nee nañ 2019 la nag suñu waxtaanee yan point lañ ci war a dugal ñu xool yi assises yi waxoon ñu xool yi CNR yi wax ak 15 points yi président wax parce que 15 points yi am na ci ay jéego mais dafa des donc loolu la ñuy wax ni ñun forum civil nañu waxtaan repousser ko ba nga xam ni tey ñor na xomb ba nga xam ni ñu ko defee mën nañu am d'ici 15 ans 20 ans dootuñu laalati institution yi mais suñu ko bëggee def réformette wala ñu def ko loo xam c'est taillé sur mesure dafa daf ñuy rattraper rek dafa indiwaat yeneen coow loolu daal mooy position forum civil.